dafa essentiel euh, ci li nga xam ne moom mooy suñu vie de tous les jours euh, daanaka bu amee bouleversement euh, ci secteur boobu c'est tout notre écosystème moom mooy moom mooy moom mooy jaxasoo alors euh, janvier 2023 la ñuy déparé ndax foofu la lépp déparé euh, janvier 2023 ngeen appliqué une hausse euh, sur le prix de l'électricité pour la deuxième tranche et la troisième tranche dinañu ñëw nga expliquer ñu de première tranche ba troisième euh, tranche donc ma première question mooy pourquoi euh, bi hausse bi amee deux mois après ou trois mois après euh, si consommateurs yi sentiruñu ko pourquoi le débat se pose maintenant waaw mais mun na balaa may répondre ci question boobu nga may ma rekk moo wax ne dëgg-dëgg ñu ngi métti man maa ngi métti de situation bi nga xam ne am na te di rassurer sénégalais yi tamit ne situation bi dëgg-dëgg personnelu Sénélec bi yépp ñu ngi koy méttitlu ndaxte suñu gëm-gëm ak suñu conviction mooy que ni mënoon na bañ am walla su amee it ampleur bi mu am waru ko woon am ndaxte effectivement wax nga ko au mois de janvier ñëw nañ après réajustement tarifaire bi yaakaar naa ne sax yow boo xoolee peut-être yow war nga am image yi ma def une communication au niveau d'un hôtel de la place où invité woon nañ presse bi yëpp invité woon nañ association de consommateurs yi aussi pour expliquer li xew li xew nag euh, may mun a c'est simple lu kii la ndaxte dañu ñëwoon ñu ne comme réajustement am na son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mu ne ñu am na loo xam ne mënuñu ko laal waruñu ko laal mooy lu ñuy wax les couches vulnérables ne suñuy def réagissement ne ñu fexe ba ñooñu buñ leen laal et damay préciser ko ñooñu depuis 2017 seen tarif changé wul léegi ñu ne ñooñu nañ leen bàyyi si même tarif bu ñu nekkoon muy 91 francs yi kilowattheure yi di jar pour une consommation jusqu'à 150 kilowattheures et ñooñu buñu ñu xoolee aujourd'hui lu ñuy wax tranche sociale bi au niveau de Sénélec c'est un million six cent mille ménages donc ñooñu mun naa taxaw fii ma wax ne ba léegi nii ñuy wax seen consommation ak seen facture changé wul. juste préciser que ñi ñuy woowee première tranche muy tranche sociale bi mooy ñi nga xam ne seen consommation ëppul cent cinquante kilowatt heure. par mois par mois. soit 300 kilowattheures par bimestre et ñooñu ils sont 1 million 650 mille léegi ñu dem ci beneen tranche bi ci topp muy ñu nga xam ne ñoo nekk ci troisième tranche bi léegi ñu ne ñooñu donc dinañ yokk seen seen la troisième tranche tarif bi dañ ko yokk et loolu boo gisee ñu def ko noonu lu ko waral c'est parce que dañ ne fii la ñu bëgg a yegg mooy en attendant pétrole ak gaz bi di ñëw ñun xam nañ ne dina doon métti mais président dans sa conception def nañu comme dinañu yegg foo xam ne dinañ am pétrole ak gaz nga xam ne ñëpp dinañ mun a jënd courant ñëpp dinañ mun a jëfandikoo courant nu ñu tel mais xëñ na balaa ñuy yegg am na si ñoo xam ne duñ ko attan ñooñu. léegi ñan la mooy tranche bi nga xam ne moom la ñuy protéger muy un million cent mille ñeneen ñu si des muy 586 mille clients yoo xam ne ñu ngi si troisième tranche bi maanaam si nuñ koy concevoir ñoo xam ne am nañ moyen fay électricité ñooñu ñu ne réajustement bi ñooñu lay concerner maintenant bu ma ñëwee au mois de janvier lii yëpp dama ko expliquer ne ñii. seen consommation seen facture dina yokk léegi nag lan moo xew ci mbir mi meemu na yaakaar naa ne lu tax ñun ñu koy méttitlu mooy que ni dañuy assumer suñu paar de responsabilité ci affaire bi client bi aussi xool moom lan moo si part de responsabilité yaakaar naa ne suñu jógee ci waxtaan bi ku ci nekk dina ko xam ñun lan mooy suñu part de responsabilité xëñ na lu ñu manqué mooy que ni. waroon nañ gën a mën a insister pour wax client bi ne def leen ndànk facture yi dina métti def leen ndànk consommation yi dina métti et lan moo ko gën a yokk encore mooy xam nga ne may mun a ren du Sénégal rek mais wax nañ ne si àdduna bi yépp tàngoor bi ni mu yokkee kenn mosu ko seetlu depuis bu àdduna sosoo ba léegi et donc on a enregistré ay température yoo xam ne kenn mësu ko gis léegi nag bu ko defee lan moo ci xew troisième tranche bi pour ñenn ñi dem na 16 pour cent 20 pour cent 30 pour cent nga jël loolu yokk ci augmentation consommation client bi te damay wax mais mun a Senelec am na loo xam ne ñun mënuñu ko c'est-à-dire buñ la xasee ba indil. courant lenn rek mooy suñu obligation mooy tegal le compteur boo xam ne dafay compter mais Senelec sañul nga laaj ko courant mu bañ senelek sañul ñëw sa biir kër ne la appareil bii day fonctionner bii du fonctionner wala fayal bii wala bul fay bële loolu su sec Senelec sañu ko maintenant nag dañ leen courant baa ngi nii mais compteur baa ngi nii lu dox ci kër gi dina ko compter mais ñun nag ci lu ma gis mooy que ni protéger nañ les couches vulnérables ñoo gën a ëpp un million cinq cent mille ñii yaakaaroon nañ ne mën nañ fay parce que ñoom am nañ moyen fay mais erreur bu ñu def mooy que ni ñii ñu waxoon ne mooy six cent quatre-vingt-six mille clients yi mën nañ fay waaye tey jii nii lu ñu gis que ni mën nañ fay waaye bu ñu comprendreul ñoom ñoo mun a gën a yëkkati coow et ça bokk na ci jàngat yi nga xam ne jàngat nañ ko et à partir de ce moment ñun lu ñu waroon def mooy dañu waroon gën a insister wan client bi ne facture bi dina yokk ba bu waree taal yenn appareil yi automatiquement xelam dem ci montant